الله من كل كريم أكرم من آمه قلد لهم تكرم mbokk internet yi ñu ñëw si bâche Serigne Saliou Thioune ndigal si jannatul maxwa pencu boppam bi fekk fii walakaanu Serigne Saliou Tawfekh Mbaye sama maa ngi lay bu baax sama waa te di la bëggee di sant bu baax ci seen teewaay te di leen ndokkale ci màggal gi di bëgg ci yéen ak seen liggéey bu metti bii nga xam ni boobu ba léegi macha allah yéen ci rek ngir bëgg dara bañ a raw gars yi ci internet bi maa ngi leen di ziare te di leen nuyu di leen ndokkale di bëgg ci yéen. bu fekkee gannaaw bi nga ñëwee si bâche bi tey nga yëg da nga gisee sëriñ bi toog sa waaja sëriñ Béthio Thioune moo ko doon def taawam bii tey toog fii nga gis mbooloo bi lan nga li ma yëg mooy ak cant ndax suñu Béthio mbiram Serigne Sall bi ko waxoon ni fi léegi mbir mbirum Serigne Touba ngi dox say mbir di dox loolu dama ko yëgaat tey bi ma dugg see baas bi macha allah gars yi teew nañ leen daan teewe doxe nañ ko nam daan defee li ma yëg mooy sëriñ bi rek ak ndamul sëñ becc loolu rek laa yëg. bi ngay si ñu gis mbooloo bi yëpp tàcc loolu tamit ba waaw loolu ak cant la rek ndax ñun dañoo amul lu dul bi te ñoom xam nañ ni rek lañ bëgg moo waral biñ dugg ku ne wane sa mbëgg ci ñun ndax dëgg fa yàlla loolu ak cant la ñu ngi koy sante sëñ becc ndax lépp moom moo ko defal. waa loolu du dara lu dul sëriñ bi rek sant naa ci bu baax ñu gis tamit nag yi bu ñu dugg si Touba. foo sànni mbatt mu teg. Serigne Saliou Thioune teg tànkam fa bàyyam ba daan teg. mbooloo mi foo xoom ñii di tuur xewal ñii naan seen seet bécco kenn la ñi naan yéeme na daal mbokk taalibe yi yéeme na loolu noonu ban gis-gis nga si am loolu mooy fi ñu nekkoon ba tey la ma waxoon ni Serigne Saliou waxoon sëñ Béthio ne ko fekk mbirum fi nekk mbirum Serigne Touba ngi dox say mbir di dox nit ñi fi mu ne seenu bëgg Cheikh Béthio day yokk rek te ndamul sëñ Béthio day yokk dootul jëm ginnaaw mukk sëñ Sall nag yi mu wàcc ren bu déwénee dina wàcc lu ko ëpp mbooloo mi ngay wax bu déwénee lay ëpp yàlla nañ fekk yàlla nañ bokk ca ñoo koy fekk te tal ko loolu rek a mat a ñaan waaye kii moom borom kaala gi toog moom ci ndam rek lay sax may ñu si kaala gi tuuti rek sant nga yokku nga doo tawte kuule nga sëriñ bi aar na la jox na la kaala ga kaala gi jot na la ëpp la yeesu la suñ muntaxa nee na la cun doxalal wàcc nga ndeysaan am na solo si leeral yi tawfe kontaan naa sama na yàlla ñëppam jàmm yàlla nañ ko teewee di lu bari di ñaanal sëriñ Saliou mu yàgg fi di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm def ko ci bitim réew te musal jaam ñëpp te mosal jaam ñëpp ci barkeb Serigne Saliou yàlla ñëpp am jaam jërëjëf taw jërëjëf allahu min kulli karimin akram أكرم